ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ci li nga xam ni mooy abonnement yi ngeen di wéy di topp ci seen préféré Aladji Malick TV mu nekk loo xam ne lu nu bëgg la lu nu kontaan la information yi dañ koy commencé ak lu yéeme daanaka ci bànneex lañ koy commencé mooy Koulibaly mi nga xam ne euh, fi mu toll nii euh, match bi nga xam ne moom la football match boobee match bu mucc ayib la bu tegu ci yoon match boo xam ne daanaka box box la ko doon def maanaam kurfañ yeeg lépp ak jom joo xam ni xam na ko loolu la doon wane fële nga xam ni mooy stade ya nga xam ni moo ne ca Angleterre loolu di lu am solo loolu di fullaak fayda ba tax sax moo dugal bit boo xam ni daanaka bokk na ci li tax bitam boobee bu ñu ko compter en totalité ñu am ñaar ak ñaar seen digganteeg euh, goney Tottenham yi nga xam ni daanaka moo jur coow coow loolu nga xam ni moom lañ leen bëgg a décortiquer euh, benn par benn ci euh, compter mi nga xam ni daanaka ak tuxal Euh, meloon nan ni foofee xale yu ndaw mu doon loo xam ne lu ruslu la ci football lu ruslu la ci li nga xam ni mooy gone yi jàkkaarloog seeni télévision euh, di ko seetaan mu nekk image boo xam ne bu ñaaw a ñaaw la image boo xam ni kenn du ko musa mën a rafetlu image boo xam ni war na noo xool euh, maanaam ci Koulibaly mii xeex bi nga xam ni moom la doon xeex ci terrain bi ngir lan équipe bam am ndam te loolee bu jeexee mu tàpp ñim doon dajal ñoom Harry Kane mi nga xam ne daa ci kawam ba jeex tàkk loolee di lu am solo loolee ñi nga xam ne ñooy entraîneurs yi waroon nañ koo xool ndax bu gone yi xoolee ci ñoom musiba mën naa am fii la commencé benn par benn loxoon di joorub ak ka nga xam ne mooy tuxal moo nuyu ki nga xam ne mooy Conte di entraîneur bu Tottenham ak Conte moomu nag jàpp nañ ni image yi nga xam ne moom lañ ñu yónnee moo xëcc loo xam ki nga xam ni mooy tuxal ndax tuxal boo ko xoolee ak sew la goo xam ni amul doole kon loxoom boo ko xëccee mën nga koo gaañ wala leneen bu ngeen xoolee image yi Euh, Bhoutan la ko xëcc bu baax a baax ba mujj sax si image yi ñu war a indiwaat euh, ki nga xam ne mooy Thomas Tuchel daanaka dafay yebbeeku ci kawam mu nekk loo xam ni ak tooñ la goo xam ne tooñar bi la gën a jóge euh, ci li nga xam ni moom la def bu ngeen gisee Tuchel moo waral yeneen deuxième image yi leen indil mu daal di mer ngay gémmañ gi di bell li nga xam ni image sax wala caméra waroon na ko jomba jël maa ngi ci image bi ci kaw nga xam ne bu ngeen xoolee kii nga xam ni daanaka am na lu ko métti loo xam ni eh, jéggi na po eh, jéggi na football loole tamit eh, di nekk loo xam ne lu waa ligue de football war bàyyi xel la ci diggante ñaar ñi nga xam ni ñoo doon daje ñaar ñi nga xam ni ñoo doon jote mu doon lu ñaaw torop bu ma ñëwee ci image bi ci suuf la ma fay gis arbitre yi nga xam ni moo dox seen diggante waaye tuxal ma nga expliqué arbitre yi li nga xam ni moo ko naqare donte arbitre yi askan danañ ko mos a dégg loole mosoon na am ci diggante ka nga xam ni moo nekk Arsène Wenger bu Arsenal ak José Mourinho mi nga xam ni mi ngi doon euh, di football wala mi ngi doon entraîneur Arsenal kon looloo yàgg na ci seen ñaari diggante waaye loolu lépp ba mu jeexee ba gars yi jël ci affaire yi ba nu tegee ci axe ba juboo ree am ñoom ñaar ñu woowalet kenn ku ne jox sa loxo moroom nuyoo tuxal moom bàyyiwul ma ngay ñu ñëw euh, ca conférence de presse ba ginnaaw ba conférence ba jeexee ma nga euh, dindi la nga xam ne mooy loxoom di joor ba di wane jinax jay wane ni maanaam man mii doole kese laa doole kese laa sawaay bi mu làmbee daj na loole tamit daanaka ay kafaki ree lañ ko mën a tuddee ndax bu ngeen gisee nii yéen ñi nga xam ne ay nit ñu ñuul ngeen te dëkk Sénégal daa ngeen ko def bu ngeen daan jotee ba pare di wane ay jinax kon loolee jàpp naa ni mujj na kaf agré lépp jeex ci jàmm